déglu leen aslëf l'observateur indi xëtam mu njëkk nee na kat emprunte un nouveau coût de milliards de francs CFA nga xam ne mu di Macky Sall fas yéene rek daal di jokkale ci xaalis googu toll ni 604 milliards de francs CFA yéeni kaay bi duñu xamal ne njiitu réew mi bu fekkee ne ay weere ko fi dese bu bëgg ñoo indil li nga xam ne mu mati ab benn dette bu toll ci kan moo koy fay milliards de francs kan moo koy fay mu mel ni moom mee njiitu réew mi Macky ah, ma ngay def loo xam ne rek kenn xamul mbir ma fan la ñu mën a jural dañuy wax itamit lu jëm ci wàllum Touba interdiction Korsier gannaaw xalifa général ah, des Mourides fas yéene indi nag ñaari activités yoo xam ne dañu koy tere ah, bis ni ki tey fële ca Touba lu jëm ci wàllu pèlerinage bi nee a leen ah, màggal Touba dañ ci gis ay doxalin yu bees tàkk ba tey Sud Quotidien yéenekaay mu ngay wax lu jëm ci wàllum bonne note de l'économie sénégalaise le FMI récusé mu mel ni rek dafa am ñoo xam ne rek d'accord ci ci wàllum économie fii ci Sénégal ba tax na mu daal jokkee alal bu toll noonu maanaam koppar goo xam ne rek dugg na ci réew mu mel ni rek daf ñuy jural li nga xam ne moo di ay bor yu bëri ba tax na ki nga xam ne moo di Meïssa Babou économiste et enseignant à l'UCAD nee FMI nous donne que nous dans un cycle d'endettement Abou Kane ci ay waxam moomee ma ngay wax lu jëm ci wàllum FMI nee na ce médecin euh, qui prescrit et paye les ordonnances à ses euh, lu toll si cent six milliards de francs CFA yooyu nekk ay crédit ma bu ñu koy fay lay metti waaye jamono ji ñu ngay rek a xàkkataay sénégalais euh, dafa gaaw a kontaan libération yéene kaay dafa am ku muy libéré diète téléphonique administrative flicage de ses agents naka noonu rek li nga xam ne moo di communication yu ne lan moo waral ah, mbir moomee ba tax na le dernier abus de la secteur euh, stoppé le CDP s'y oppose et assène l'instrument et la consultation de conservation téléphonique à des fins d'investigation ne sont pas légitimes ba tey le quotidien yéenekaay yi indi na ay xëtam bu njëkk jëmale ko lu jëm ci wàllum odeur naka noonu rek gannaaw mu mel ni benn marché goo xam ne amoon na fa gannaaw rek habitants yi nga xam ne ñooy se lu jëm ci wàllu aménagement de gages HEP des ICS et demande des indemnisations la cité Taïba et le poste de garde de l'usine incendie plusieurs personnes en garde à vue mu mel ni rek xeex bu métti moo amoon lu jëm ci wàllum population Mboro ak nga xam ne ñoo di takkadeer yi fële ci Daaru Xudus la ko war rek moom moo di xeet bu bon boo xam ne ak ay gaz yoo xam ne ñu ngi koy dund ba tax ne askanu askanu Sénégal askanu Daaru Xudus a mer nañu ba fépp ngir génn tale bi xeex loo nga xam ne moom moo di ñàkk kaaraange googu ak i tamit ñàkk reconnaissance googu le soleil yéene Afrique euh, kooku di njiitu réew mi Macky Sall décroché waat na ay xaalis bu toll ci neuf milliards de francs CFA ngir interpellé li nga xam ne moo di luy e. loolu nag jàpp nañ ne mbir moomee euh, kii di njiitu réew mi ma ngay jël ay dettes yoo xam ne kenn xamul fan lañ koy fay la su la yéene kaay indi xatam bu njëkk jëmale ko ci ki nga xam ne moo di euh, njiitu réew mi Macky Sall ak itamit lu jëm ci wàllum financement infrastructure bés bi yéene kaay bés bi le jour Serigne Mountakha et la sécurité de Touba gannaaw njiital boobee nga xam ne moo di Serigne Mountakha indi na benn fatwa gu bees la xalifa inter interdit formellement la politique et le euh, football. Après l'évaluation de ces La lettre inédite de Serigne Abdou Lahad Mbacké au procureur de euh, Diourbel ci atum naka noonu rek euh, ki nga xam ne moo di Serigne xa dafa daal di gis ab lettre goo xam ne rek kii di Serigne Abdou Lahad bindoon na ko jëmale lu jëm ci wàllum doxalinu Touba mu mel ni rek loolu lañ dañ daal di appuyé waat ngir bépp njàngale waaye tamit ak bépp doxalin fële ci Touba Touba abus de confiance gannaaw a benn chef religieux goo xam ne rek tëj nañ ko juróom ñeenti at mu mel rek tey dafa daal di wuy ji boromam ndax moomee tuumaaloon nañ ko lu toll si cent trente quatre millions yoo xam ne rek abus de confiance dañ ko daal di jàppe woon Maguette Sène n'est pas le COUD gannaaw rek moomee Maguette Sène nekk DG COUD moomee bañ na lànk ne li nga xam ne moo di université duñu ko ubbi vingt quatre heures yéen kaay ci ay heure mu ngi ñuy wax FMI devant l'œil acéré du ba tey ne moo di eh, mbirum économique ak njiitu réew Macky Sall ci eh, yëy yàbbi na tamit d'accorduñ ci mbir moom mi eh, maître Clédor Ly ba tey ma ngi wax ci kaw Ousmane Sonko mu ne il est dans un service de réanimation de l'hôpital de Dakar mel rek ak kii di Sonko tanewul ba tey te mbir maa ngi gën di te ma ngi koy a sonal source a ci ay source mu ngay wax lu jëm ci wàllum résolution de la Sénat gannaaw rek ki nga xam ne moom di Ousmane Sonko ak ay avocat am taxaw nañ rek ngir waxaat lu jëm e a ay fiche parrainage yu Sonko ba tax na rek yéenekaay bi wax ne la commission électorale nationale autonome a tenu hier son assemblée générale statutaire plusieurs sujets ont été abordés lors de cette rencontre mu rek rencontre ba nga xam ne ñi nga xam ne moo ay avocat Ousmane Sonko ak DGE ñi nga xam ne ñoo géré lu jëm ci wàllum parrainage ngi ñaan di sàkku ngir ñu delluwaat ki nga xam ne moo di Sonko ci fiche de parrainage mu a bokk ci présidentielle les députés de Benno crachent leur vérité à Amadou Ba mu mel ni rek rencontre bi nga xam ne député yi ak ñi nga xam ne moo di waa Benno Bokk Yaakaar ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak Amadou Ba ngir gunge ko ci atuma 2024 ci élection yi mu mel ni rek dañuy daal di indi ay cadres yoo xam ne waroon nag ki nga xam ne moom moo di Amadou Ba il dénonce le manque de moyens financiers pour le parrainage nee na itamit li nga xam ne moo di parrainage bi nga xam ne Amadou Ba ñu ngi ko bëgg a dimbale moom mais moyens yi bëriwul nañu waxante dëgg ndaxte dëgg fa mu nekk rek vérité dana am te itamit nit ñi yëpp dinañ ñu sotti waaye itam wax nañ ñu jëm ci wàllu manque de respect bi nga xam ne ak manque de considération ba nga xam ne am nañ ko envers les ministres ci ci jamono nga xam ne Amadou Ba ma ngay euh, ne rek les échos yéene kaay dafa daal indi waxtaan ak xuloo nga xam ne rek ñi nga xam ne moo di député benn di nañ koy jébbal ak nga xam ne moo di Karima Wade daal di xëyee mu PDS balise de terrain gannaaw rek rek ki nga xam ne moo di Karim Wade ñu ko dellu si ñibbi si moom mi Karim Karim Wade jël na benn moo olof ne kat ñibbi jot na ñibbi si moom mi Karim Wade taxaw na ngir daal di saafonteeg ñi nga xam ne ñoo daal di ñooy mbër yi nga xam ne ñoo war a dem fële ca 2024 ngir wuutu ah, ki nga xam ne moo di njiitu réew Macky Sall ah, moom mi Karim Wade mel ni rek taxaw na temb ngir daal di eh, indi li nga xam ne moo di jëmbeem wala fu ko dañee yéene kaay collecte de parrainage jeu de cache-cache des a ah, point de presse c'est une vente aux enchères pour dénoncer la discrimination sur l'aide de la presse mel ni rek li nga xam ne moo di état bi décroché boobu mu décroché ci ay koppar ngir jox ko presse sénégalaise yu mel dafa am ñoo xam ne d'accord ñu benn yoon ba tax na Walf Quotidien daal di taxaw rek ngir indi benn plan d'action waaye itamit daal def benn recours sur la table ngir wax ne d'accord ñu ci li nga xam ne moom moo di la presse bi ndaxte nañ ko séddalee rafetul ba tax na rek boobee di ministre de la communication bi géré mbir moomee Walf Quotidien way tamit taxaw ne indi xëtam bu njëkk ne kat daañu def benn recours wax na nañ ko séddalee du yoon jaar jaaduwul direct news dafay directem lu muy doon visite du candidat de Benno à Louga Moustapha Diop moom mais daal dina jumóoyu Amadou Ba ba tax na mbir moom rek nekk mbir mu jaaxal ñëpp ba tax na yéenekaay bi dañu wax ne le maire de Louga avait euh, refusé d'accompagner le premier ministre lors de sa visite chez les religieux du euh, Ndiambour il a peur la suite bu dee la rencontre du premier ministre avec le maire du euh, département Beaucoup de personnes soupçonnent que Moustapha Diop serait dans un chemin autre que celui incarné par le premier ministre. Mais ses proches dégagent en tous. Moustapha a été exclu du cortège du premier ministre et en lui refusant de numériter euh, son véhicule. Moustapha Diop est-il victime de son refus de déclaration de soutien au candidat Amadou Ba Direct News mu ngi ñuy wax ci pëccoxoo ak jaaxle bi nga xam ne Moustapha Diop jamono ji ñu ngi koy wax ne itamit d'accordul euh, ci doxalinu Amadou Ba bu fekkee itamit moom te mu ko fësal moo gën ah, bu ñu wootee mu bañ a dem waaye tamit bu Amadou Ba di def campagne mu mel ni koy làkkatu bugg la ànd ak Amadou Ba las yéene kaay Sadio Ndiaye et Kalidou Diallo ñoome daal dinañ rejoindre Karim Wade ngir ànd ak moom ci élection 2024 loolu rek mu nekk yéene kaay bu las yéene kaay daal di indi xëtam a njëkk la tribune yéenekaay yi mu ne les Sénégal plus que jamais fatigué jamono ji rek inondation yi ba tey am na ñoo xam ne ñu ngi koy souffrir mu mel ni rek dañu daal di samp ab ñu ne koppar yi nga xam ne ñëw na ci réew mi ngir ñu daal di saytu lu jëm ci wàllum inondation koppar googu dañu seetlu ne saa yi ñu muy gën di ñëw ñuy gën di tooy te tamit dem nañ ba suñuy put daal di laal ndox mi mu mel a mën a gunoo mucc ba tey ci inondation loolee la tribune yéenekaay indi na ko ci xëtam mu njëkk stade yéenekaay lu jëm ci wàllum tàggat yaram la Dieye gannaaw rek Ismaïla Ndiaye ak Elimane Ndiaye ñoomee gis benn dévouement ak itamit benn safara gu tàmbalee génn ci ñoom mu mel ni rek dañu tàmbalee nekkaat yeneen joueurs yoo xam ne rek a ñu leen yaakaar maanaam ni leen yaakaaree woon la ko ëpp la ñu daal di gisaat ci ndaw ñooñu ba tey daañu wax itamit Sadio Mané mi daal di jënd ab club français ba naka noonu rek coow lee ma ngay jëm ñu kenn kenn xamul lan ma war a Sadio Mané daal di jënd équipe boobu waaye nag ci ay micro daana fas yéene waxtaan lu tax mu daal di jënd club bi ni mel suñu làmb ñu jëm ci wàllum bëre Modou Lo Gris Bordeaux lutteur de Pikine Modou Lo mu mel ni rek euh, jamono ji euh, carrière am boo ko seetloo euh, ñamu daan ci lu jëm ci wàllum Pikine moo ëpp ba tax nag ñu ne ndax Ama Baldé va-t-il stopper l'hémorragie maanaam ndax amaa Baldé moom mais li nga xam ne moo di wànnent bi ndax dana ko arrêté am déet ndaxte kat Modou Lo fa mu jaar ci Pikine daan na leen daan nag xam moom moo di lay bay ak Eumeu Sène daan na ko ñaari yoon loolee tamit daañu ci wax daañu wax itam lu jëm ci wàllum bagage expérience parcours tactique les quatre armes de guerre de Lac de Guiers contre site yéenekaay bi suñu lamb dañuy wax ne mu ne quatre armes yi la Lac de Guiers am te itamit yaakaar na ne ko indi ci digganteem ak site mbokk internetu KN TV lii moo nekkoon seen revue de presse di leen jox dig daje suñu yeneen i programme jërë ngeen jëf